première la manifestation boo xam ne fi ci biir Sénégal ay citoyens dañoo mobiliser wu pour dox ñaxtu pour que suñu mbokk suñuy doom suñu mag suñu jabar ak suñu jigéen yoo xam ne ñu ngi ci biir kaso yi nguur gi mun leen a gëstu xam nga nekk kaso Sénégal dund bi nga ne moom moo fa nekk tey dafa weesuwul ak dund mala daanaka ñi jiite réew mi toppatoo bi ñuy jox seen xar yi ak seen béy yi seen biir kër moo gën toppatoo boo xam ne ñu ngi koy jox détenu ci biir kaso yi ndax yori sa yori ay détenu di leen pakkate comme li nga xam ne moom la suñu euh, ancêtre yi daan jànkonteel ci navire yi bi leen di yóbbu Amérique comme esclave loolu état bu civilisé waru ko nangu moo tax message bu ñu bëgg tey sànni ci nguur gi mooy euh, lépp loo xam ne war na ko def ci biir kaso yi na ko def nu mu gën a gaawee nañu defay investissement pour tabaay kaso yu bees fii ci biir Sénégal parce que nag askanu Sénégal dafa yokk li fi tubaab bayoon ci biir kaso day tey mënul attanul maanaam nit ñi nga xam ne ñoom ñoo ci biir kaso yi kon nañu investir kaso bu sabi xotaan kas san place doyul mënul sa régler problème mu rëbës nda rëbës 800 place nga fay defay 3000 personnes 400 place mënu ko régler kon nañu investir yokk capacité d'accueil kaso yi waaye tamit recruter ay magistrats yi mot pour que ñu mun di instruire dossier nu mu gën a gaawee mu leen di atte nu mu gën a gaawee loolu mooy message bi nga xam ne ñu bëgg nañu ko sànni di sant yëpp waa Fra France dégage ak képp xam ne bokk nga ci affaire bi ñu ngi lay sant jërëjëf. en français en français waaw asalaamaaleykum leen raay dama ne. ñun ñëpp nous sommes en liberté provisoire démb Guy Marius Sagna suba man la ginnaaw suba ñun ñëpp dama ne lii nu ñoo koy xeexal suñu bopp lii dafa war a dakk prison yi yi ñu ko yelloo nekkuñu fa Aliou sal moom moo yelloo prison yi dama ne ñii nekk ci prison yi yelloowuñu prison yi lan moo waral ñun bu ñu sàccee ñu ne nous nous avons volé nee nañ ñun ay voleur lañ mais ñoom ay détourneur lañ lan mooy détourné ay sàcc lañu Aliou Sall sàcc la Macky Sall sàcc la non mais qu'on se dise la vérité gars yi dama ne lii la borom moo koy fajal boppam dafa jot sëkk ñun suñu nooteel gii mu dakk ñii nekk si liberté ñii nekk si prison nañ ñun ñoo leen mën a xeexal ñun ñuy nekk si biir wasalaam jërë ngeen jëf. merci Ardo merci beaucoup. waay jël ma lii dafa diis. merci beaucoup Ardo. grand bi alors. ça va ñu ngi lay gis ok gars yi alors dans quelques minutes allo. asalaamaaleykum mbokk yi. je suis venu pour participer à cette manifestation. venu d'abord pour dire que je félicite les initiateurs de cette manifestation et vous encourager. Je voudrais dire que je suis un ancien détenu et probablement encore un futur détenu, parce que malheureusement, ainsi va le pays. Je voudrais dire à l'endroit de Monsieur le ministre de la Justice qui n'a jamais fait la prison, que j'ai fait la prison du camp pénal, j'ai fait la prison de Tambacounda, J'ai fait la prison de Rebus à plusieurs reprises. J'ai fait les gardes-vues dans presque tous les commissariats et dans toutes les brigades de gendarmerie. Les propos de monsieur le ministre de la Justice ne sont pas véridiques. Les conditions de détention dans toutes les prisons du Sénégal sont inhumaines et inacceptables. Il y a un surpeuplement de la, de la population carcérale. Les conditions de détention sont inadmissibles. Les chambres neuves des chambres 10, des chambres 1, 2, 3, des chambres qui font entre 40 et 50 mètres carrés. Et dans chaque chambre, il y a un minimum de 180 à 200 personnes. C'est ça la réalité. Sur une prison qui, qui, a à peu près 45 chambres, sur 45 chambres, il y a 2200 détenus et la moitié des 2200 détenus se trouvent dans 6 chambres. C'est inadmissible. C'est la raison pour laquelle Nous invitons le gouvernement à initier le programme des bracelets électroniques pour pouvoir décongestionner les prisons du Sénégal. Nous voulons aujourd'hui que le juge de l'application des peines puisse avoir des pouvoirs réels et que le procureur de la République ne puisse pas avoir un droit de vie et de mort sur n'importe quel citoyen sénégalais. Et on souhaiterait aujourd'hui que le gouvernement du Sénégal réponde à cette manifestation de façon responsable en inscrivant dans le budget du Sénégal pour l'année 2020 dans le budget du ministère de la Justice qu'on puisse voir des crédits alloués pour la construction d'une prison digne de son nom. C'est ce que je voulais dire pour ne pas être trop long et remercier tout le monde et féliciter tout le monde. Merci beaucoup. parce que mon prédécesseur, mon frère Barthélémy, a résumé la situation. Juste pour commencer par féliciter et encourager ceux qui ont eu l'initiative. Voici une question qui devait l'ensemble des Sénégalais parce que nul ne sait le jour ou l'heure qui se retrouvera à Rebeuss. Dans le passé, il y a eu des prisonniers. Aujourd'hui, il y a des Sénégalais et des citoyens qui sont en détention. Mais demain, il y a des citoyens qui sont assis chez eux, qui sont dans les villes, dans les campagnes, dans les quartiers, qui ne semblent pas s'intéresser à ce qui se passe à la prison or c'est des potentiels détenus qui sont en sursis. Raison pour laquelle nous voulons lancer un appel au gouvernement de prendre cette au sérieux. À entendre le ministre de Justice parler, on croit que le ministre a visité une autre prison hors que Rebus. Même à l'université, les conditions d'hébergement ne sont pas satisfaisantes. Même à l'université, les conditions de restauration ne sont pas satisfaisantes. à plus forte raison à Rebeuss. Raison pour laquelle nous pensons, au-delà de Dakar, qu'il faudrait, de la même manière qu'on construit les tribunaux, de construire des, trucs, des prisons dans les régions pour décongestionner Dakar, pour décongestionner Rebeuss, mais de construire des prisons de grande capacité. Parce que la prison de Sébikotan dont il parle ne peut en aucun moment régler la situation. ne peut en aucun moment régler la situation. Ce qu'il faut et ce qui urge est de mettre, comme l'a dit le frère Barthélemy, dans le budget à venir, qu'on mette des rubriques pour construire de grandes prisons, des congestionnaires, mais aussi accélérer le rythme de jugement des détenus. Parce que les, locations les longues détentions contribuent à rendre encore plus nombreux les lieux de détention. Je voudrais m'arrêter là pour vous remercier et vous dire encore une fois que nous sommes toujours là pour avoir été anciens Chaque fois que le bonheur se fera, on sera là pour soutenir les frères et les sœurs. Merci. Merci, Merci le temps de Yanama se prépare. salaamaaleykum. salaamaaleykum tout le monde. maa ngi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp kenn ku nekk turam ak santam euh, di rafetlu seen taxawaay parce que li am solo mooy bu leen Sénégal soxla woo leen ngeen ñëw taxaw dama tax ma ni réussir du ay ngandi mbooloo li rappeur benn camion moo gën camion fee léegi nag man dafa am bu am solo boo xam ne bëgg ngeen xam mooy ministre bi dafa yàpp sénégalais parce que yàpp sénégalais yi mënul wees administration pénitentiaire ñoom seen jëm bopp dañuy jooy ñoom ndax benn pénitentiaire bu ne moom risque am mooy day jëm a garder plus de 500 prisonniers 500 détenus xeetu nit bu nekk mi ngi rëbës benn benn benn benn benn benn pénitentiaire def déjà administration pénitentiaire ñoom rek ñoom ñu ngi bëgg a dee waxatuma la ak détenus léegi chambre neuf yow balaa ngay dugg duus da ngay ran 4 du matin ngay dugg balaa ngay naan da ngay ran dambalo da ngay taxaw bëccëg amoo fóotal ñi daan ci kaw ñuy dee tuberculose choléra ay dof ngay fanaanoon ay nit yoo xam wéruñu ay nit yu piqué ay crise épilepsie paracétamol paracétamol paracétamol après ngeen ñoon ñoo lay gërëm ñoon ñoo nga xool fi gën a cóol ci kaso bi nga ne ñoom ñoo lay mais kii kan la yor c'est ça le problème c'est problème bi mooy ñun amuñu chance quoi parce que on a un procureur qui on a un président qui ment on a des si qui mentent on a que des menteurs. je suis désolé jërë ngeen jëf Oustaz Ousmane Rassoul. merci merci Kaolack. merci yi. ñu ngi leen ku nekk sa ak sa sant. ce n'est pas évident ak naaj bu tàng bi ñu woote ñëpp wuy si mais li ko jar moo ko jar parce que question bi c'est une question très sensible du prisonnier yi kese la concerné doomu aadama yëpp la concerné. comme ni ko gars yi waxee xëy na démb Guy Marius Sagna la woon barki démb Barthélemy Dias la woon ëllëg mën na doon man wala mu doon kenn si yéen donc jombul kenn léegi nag malheureusement dañoo nekk si dëkk bi nga xamante ni dañoo am ay kilifa yoo xamante ni dañuy wax dëgg lépp lu dul dëgg ils disent tout sauf la vérité suñu ministre de la justice dégg nañ ko keroog mu génn def déclaration comme quoi que dem na prison waa chambre neuf accueillir nañ ko tàcc ko man dama koy laaj ma ne ko xanaa bureau directeur bi la demoon mais demoon chambre noire de demoon sax ci cour prison bi mais bureau directeur bi demoon. ñu ngi leen di exiger dañ leen di exiger parce que suñu droit la droit prison yi nekk fii si prison bi la du ñu ay mala ay doomu aadama lañ Cheikh Ndiaye il avait 18 ans Babacar Mané il avait 19 ans ay espoir de famille lañu ñaari ñooñu tey bu yàlla defoon ñu dund ba génn prison lan la ñu mën jëriñ dëkk bi. la conscience collective elle important importante ci dëkk nañu bàyyi bu ñu wootee pour cause ku nekk toog sa salon di seetaan sa télé di applaudir di bëggee du loolu mooy tax dëkk bi avancé du loolu mooy tax dëkk bi avancé Macky Sall dañ ko fal en 2012 dafa dëppoon deru bëy mu dem ba 2019 mu dëppoo deru bukki donc lépp lu mu am tey ñun ñoo ko ko may daf di ko war a delloo c'est la moindre des choses beneen aspect bi mooy boo demee prison ñu fay gën a sonn mooy doomu baadoola yi politicien bu bu demee prison condition yi muy nekk man mii su ma demee prison amaana condition yi du doon benn nañ nañu yemale ñun ñëpp nationalité sénégalaise lañu am ñun ñëpp benn carte d'identité bi la ñu am am ñun ñu sax le bas peuple ñun ñooy cotiser di ko jox suñu ayib yi pour ñu war ñu toppatoo suñu ay prison pour gars yi den mën a nekk dans très bonne condition nañu désengorger Rebeuss on a am nañu àll bu dul jeex nañu tabax la ay prison